wàllu politique ak a yaram ak yeneen xibaar moo gën a fës yéen kaay génn tey sur quotidien ñoom dañoo dellusiwaat ci li nga xam ne kat moom mooy jële gi ñu fa a jële nag arrêté Ousmane Ngom su naataangoo yi dañuy xamal ne ginnaaw ba opposition bi nag daje dëgg talaata ba la ñu génn ci ab doxum ñaxtu moo tax ñu war a def taxaw seetlu ci li nga xam ne kat moo jëm ci arrêté Ousmane Ngom bi nga xam ne kat atum 2012 ba léegi dafay tere bépp doxum ñaxtu ci Ndakaaru ci waxtu sax ñi nga xam ne waa PDS dañ ko defoon ngir rek aar yenn taax yi biir Ndakaaru muy assemblée national sénat ak tamit palais de la république ñu jàpp ne sax arrêté boobu indi woon na coow bokk ci ñi nga xam ne di M23 ñaawlu woon ko ak tamit ay parti politique bokk na ci sax APR bi nga xam ne Macky Sall moom moo ko jiite Alioune Tine mi nga xam ne moom mooy directeur régional bu Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre nee kat arrêté boobu dañ ko fay war a jëlee kii di maître Pape xam ne moom moo jiite comité sénégalais des droits de l'homme nee na kat yëf yi ñaari mbir moo tax rek ñu mën ko fee war a na a jëlee suñu tamit jox kàddu ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu langue na kat moom xel xalaatul mukk ñu dellu ginnaaw ci yi Thierno Bocoum mi xam ne moo jiite AGIR nee na kat ñi njëkk di salfaañi arrêté Ousmane Ngom bi moo di waa APR yi Zahra Iyane Thiam bu APR solo rek moom mooy ñu fexe rek ba ak dal am ci biir mi waa l'observateur tamit dellusiwaat ci li nga xam ne moom moo nekk arrêté Ousmane Ngom ñu ngi xamal ne kat ñii di Amnesty International ak tamit Ligue sénégalaise des droits de l'homme ñoom seen bëgg-bëgg leen rek la ñu jëlee fii arrêté Ousmane Ngom moo tax sax ñu bëgg jël yi fii ko ci yoon yéeni kayi bi di Les Échos moom dafa dellusiwaat ci guddi gi nga xam ne kat opposition bi fanaan nañ ko ci commissariat central bu Ndakaaru ci naataangooy di ñu xamal ne am na koo xam ne sax ci parti bi di rajo kooku kat muy tudd Alain Idrissa ci ñu xamal ne ñoom ci ay la ñu toogoon guddi gi yëpp

avocats yi ñoom nee nañ kat nguuru Sénégal ñoom dañoo jaay doole ki nga xam ne moom moo nekk Khalifa Sall Sud Quotidien di fësal ne avocat Khalifa Sall yi ñoom door nañ xeex bi nag ci wàllu yoon ñoom sax fi mu toll ñu ngi am yaakaar ba tey ci wàllu politique ñu ànd ak Khalifa Sall ñoom taxaw temm di waajal bu baax a baax élection présidentielle yi démb sax la door li nga xam ne kat moom moo campagne de parrainage bi Vox Populi di fësal na seen bëgg-bëgg lenn la rek moom mooy am 100000 signature fii nga xam moom moo nekk ci Ndakaaru Ndakaaru nag dig Khalifa Sall 100000 parrain loolu moo gën a fës ci yéen kaay bi di a fës ci yéen kaay bi di Les Échos ba tey ci wàllu parrainage bi réew mi quotidien dañuy xamal ne ba léegi yembagul ndaxte kat fiche kenn gisugu ko loolu nag ki ko xamle moom moo nekk directeur de la formation et de la communication ci direction générale des élections di Bernard Casimir Cissé yéeni kab libération dafa dellusiwaat ci julug ñaari rakka yi nga xam ne amoon na démb fële ca ndar mbooloo mu bëri moom moo fa teewoon yéeni kab di Soleil di fësal ne julli ak moom moo gënoon fës démb nag fële ci wàllu tàggal jërëm deuxième journée éliminatoire CAN 2019 diggante Madagascar ak Sénégal dañ jàpp ko juróom-ñeenti fan ci weeru septembre bii ñu nekk nii gayndee Sénégal ñu ngi leen xaar fële ca Tana tey ci jeudi bi loolu nag yéene kaay bi di record moo ko ci xëtam mu njëkk suñu naataangoo yi dañuy xamal ne kii di Mbaye ak Youssouf Sabaly ñoom duñ bokk ci jogante bi ndaxte kat dañoo am ay tolof tolof moo gën a ci nga xam ne moom moo nekk stade football kat yëkkati ay kàddu boobu kii di Abdoulaye Diallo di góolu Sénégal nee na kat ay bal aérienne dina fa bëri trop moom mooy ñu gagné rek su ko defee rek def ab jéego ci wàllu qualification bi basket éliminatoire mondial masculin ginnaaw ba ñu amee ay jafe-jafe bi gaynde nag door nañ ko démb am nañ sax ne kat ci lañ nekk billet d'avion yi mu toll nii nag na loolu yéene kaay bi di record moo ko fasal ci xëtam mu di stade Adidas mi tàggat gaynde yu góor kat li ñu dal war nañ tee nag jàngat bu baax a baax ci wàllu lamb yéen kay du sunu lamb dañuy xamal ne staff Bombardier bi ñoom bëgguñu bëri ak kii di Ama Baldé seen bëgg-bëgg rek moom mooy sëgg ak kii di Tapha Tine sunu lamb di ñu xamal ba tey Bécaye Mbaye sax mu ngi dox diggante amaa Baldé ak tamit kii di Gris Bordeaux mbokk yi jàngeen jëf ba suba incha allahu rabbi